waaw li xew fii daal mooy euh, ñun ñëpp xam nañ ne tey moo doon bés bu mujj bi nga xamante ne bii moom mooy bésu bindu bi ci liste électorale yi donc comme ni ñu ko doon defee donc ñu ubbi 8 war a arrêté liggéey bi à 18 heures loolu nag du suñu coobare loolu code électoral moo ko wax donc ñu ñu ñu appliqué ko malheureusement bi ñu koy appliqué am na ay nit yu fi nekkoon ñoo xamante ni bii xëj na liñ ko appliqué tax na ba mënuñoo bindu ñooñu nag xam naa ne ñoo walbatiku dem ci ginnaaw donc commencé jël ay xeer di sànni si sous préfecture c' exactement ce qu' ils ont donc sànni fi yàqate li nga xamante ni bii mooy ñetti bureau yi fi nekk dont le bureau de l' adjoint au sous préfet bi ñu nekk nii te ngeen nu ngeen gis ko si sama ginnaaw maanaam vitres yi yëpp gars yi nu ti tuddati xale yi yàq nañu ni nu mel moo moo nekk ci bureau bi sës si moom waaye tamit ci bureau bi nga xamante ni fa lañ doon sax liggéeyee ba au point d'ailleurs que dañoo mujj lan doon liggéey ñu maanaam arrêté ko dem jëm koo mottali sama bureau donc loolu mooy li nga xamante ne bii moo fi xew voilà. ñi waaw ñoom ñëpp yëg nañu ko parce que bi mu amee rek si tàng tàng bi la ñu rendre compte préfet du département de Mbacké moom aussi mu rendre compte au gouverneur maintenant ñoom ñu rendre compte au niveau supérieur maintenant ñu ngi leen di déglu lépp lu ñu digal ci mbir mi rek incha allah rabbi ñu def ko. voilà